بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بك جلدي دبل خمسة دينه في نيويورك ak àdduna wërngal këpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu tey la 20 mars 2011 dimanche tombeek ci weeru rabi osaani 1432 ci gàddaayu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam xam sa diine tànnal na leen seen boo xamante ni moom la ñuy tuddee lenn ci sëy la ñu tuddee ko polygamie mooy góor mën a boole ay soxna yor leen jigéen sharia dafa araamal ci moom mu mën a boole ay jëkkër yor leen loolu ñu koy tuddee polyandrie waaye ci beneen fànn bi nga xamante ni yàlla daf koo daganal muy polygamie dafa am ay dawaabit yu mu ko tër ci yaxu quran ak xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ñu tànnoon kii di al ustaz fadilatu al cheikh ñang mbay ci sénégal muy koo xam day yëngu ci wàllu daawa di woote ci pas-pas bu wér ak manhaj bi yonent bi salaa sallam nekkoon ak i saxaabaam waxtaan wu mu defoon te gëstu mu yaatu def ko ci wàllu polygamie ñu war koo jël tegtal ko li nga xamante ni moom mooy askan wi kon li ñuy def balaa ñuy jox technicien bi di leen yëgal ni waxtaan wi du xat ci une heure de temps moom moo tax bu ñu tegee première partie bi dañuy def rek mooy bàyyi ba ay bis bii di ñëw insha rabbi ñu tegal leen lii nga xamante ni moom mooy deuxième partie bi suñu boroom yàlla subhanahu wa taala ci yërmandem ngiree doomu aadama bañ a kersowoo di laajte kuy baayam ak kuy ndeyam moom moo tax mu yoonal sharia yoonal li nga xamante ni moom la ñu yëwoon ci dundu doomu aadama yi luy defar seen àdduna ak seen àllaaxira kon duñu commentaire duñu tamit di tagg ustaas bi waaye ku déglu rek insha allahu taala di nga xam mooy kan kon li ñuy def mooy ñaanal leen yàlla mu boole leen ci kuréel doomu aadama yi nga xamante ni bu ñu géddee wax bu ñu déggee wax dañuy jël li nga xam mooy lu ci gën a rafet kon dañuy jox suñu technicien mu tegalal ñu kasetu suñu ustaas bi yàlla yàlla subhanahu wa taala barkeelal leen barkeelal ñu insha allahu taala kon insha allahu taala waxtaan yi mu ngi koy def ci tawfiq bi nga xamante ni bii borom bi subhanahu wa taala def na ko ci mu may góor muy am li nga xamante moom mooy ñeenti jabar wala muy may góor lu ëpp benn jabar te waxoon nañu waxtaan yi ci wàllu sëy lañ koy def insha allahu taala waaye bu ñu ne wàllu sëy loolu dafay nekk lu yaatu lool waaye dañ koo waroon tënk ci benn mbir kon moom incha allah ci loolu lañ ko tënkal bu soobee yàlla ñu daal di ko bàyyi ci kàddu gi mu dugg ak ñun ci waxtaan bi بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا به ثم إنه نعم المولى ونعم النصير مكي من سنة سنبرام سبحانه وتعالى لجلس ينتبه عليه الصلاة والسلام مكي برم سنبرام دون ذكر التوفيق بنو daje ci barab bu mel nii di ab néeg ci néegu yàlla yi subhaanahu wa taala ginnaaw bu ñu joxee farata joo xam ni borom bi subhaanahu wa taala daf koo faataaj sunu kaw ñoo ngi ñaan sunu borom nu nangul nu nangul leen comme ni ko mbokk mi waxee waxtaanee lu jëm ci sëy dafa bokk ci waxtaanee mbiri umma bi mbiri umma bi islam bi ndax sëy da di jaamu yàlla bu màgg goo xam ni ñu bari ci ñun ni ñu foogee noonu la simple simple wut noonu maanaam du suñu mbiri bopp mbir la moo xam ni borom bi subhanahu wa taala moo ko tër tër lu mu ko tër nag su fekkee nit ñi jaar nañ sa nam ko tëree lu ca am dal nit ki ci échec rek loola ndogal lay tudd waaye su fekkee nit ki jaarewu ko ni ko islam bëgg ñu tëree ko noonu lépp lu ko ca dal kenn du ko tuddee ndogal kenn du ko tuddee natt waaye dañ koy tuddee wàcc yoonu islam te ku wàcc yoonu islam ku nekk kat lu ne mën na laa dal dëgg la mawdoo bi tënk ko ci sëy amoon kay li ñuy waxtaane ci sëy la waaye sëy yaatu na yaatu boo xam ni yaakaar naa ni ay jotaay yu bari mën nañ ko am di ci waxtaan te du jeex am naa yu jëm ci yi nga xam ni moo gën a yitteel wala boog yi jiitu waxtaanee lu mel ni tey foog naa ne loolu nga waxtaan nañ ci ay jotaay yu bari ndax ci li ñuy fàttaliku lu jëm ci wàllu labat ak ni ko islam jàngale àq yi ku góor ki ameel ku jigéen ki àq yi ku jigéen ki ameel ku góor ki ak muskilaat yi am ci biir sëy yi koy saraxat yi koy waral ak ya koy saafara su fekkee juumam nga ma fàtte yii ma wax yëpp defe naa def nañ ci ay waxtaan bu tey bii nag ñu ngi joy ak saawaam jëm ci ak tawfiqaatu rabbaaniya fi taadudi zawjaat muy tawfiq yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf koo def ci yoonal ko mu yoonal góor mu mën a am lu benn soxla man boobu mel nii waxtaanee ko lu am solo la ndax dafa mel ni li ñu yëg ñun ñëpp mooy suñuy borom xam-xam ak suñuy sëriñ ñiy jàng ci ñoom bunt bi moom li ñuy faral di wax di ci gën bëri te moo ne ci mata wax la bokk ndax jafe-jafe yi ñuy faral di wax ci biir sëy su fekkee bii du waral yëpp it bokk na ci yi waral li ci ëpp ci jafe-jafe yooyu nit mën naa yore benn soxna ci biir këram coow du bari waaye saa bu bëggee jëlaat benn soxna coow am lu waral coow loolu di am su fekkee dafa dajale ay soxna ci biir kër léeg-léeg coow ëpp su fekkee kenn la yore ci biir kër sëy bu ci nekk nag am na lislaam nu mu ko jàngalee ba tax kon sëy borom soxla ginnaaw bu mu ko defee mu bokk ci xéewal yi mu koy jaamoo nga xam ngeen ni sëy du suñu mbir rek waaye su li ñuy jaamoo suñu borom la bokk suñu borom yoonal góor ëppal benn soxna yoonal bi nag mooy mën naa ne waaye fekkiwul mooy jub leen dem defi ko mën naa nekk nag boo ko fa jub leen dem defi ko mën naa nekk mooy nit ki bu ko bëggee taman ko mu def ko su ko bëgg waa mënu ko su boobaa mu bañ koo def loolu nag bokk na ci li tax sharia yoonal ko mooy dafa am ay jafe-jafe biir kër sëy yoo xam ni ak jafe-jafe société yoo xam ni amut lu ko mën a rek lu dul bari ay soxna loolu moom ñi ko xam xam nañ ko ñi ko réere réere nañ dafa may muskila yoo xam ne bokk na ci masaakil yi gën a rëy yi umar yi moo am umar yi nag su ma ko waxee ñi tënku ci lislaam ak ñi tënku ci lislaam moom ñëpp ñoo ko bokk pour li jëm ci jafe-jafe yooyu yombut lu dul ubbi buntu mu mel nii pour ñoo am nag solution yu mën a régler jafe-jafe yooyu lu dul dañoo dellu ci jàngale yi islam ak jël saytu bi nga xamante ni moom la ko saytu lépp loo xam ni dafa tënku ci biiram kon nii ab waxtu la boo xam ni dañ ko waajaloon ci bunt bi amal nañu yaakaar ni buñ sa noppee ànd ak koy fiixi suñu borom dana nekk participation bu rëy ci mën a régler yenn ci jafe-jafe yi nga xam ni ñenn ñu ngi koy dund te fekk ne ñàkkoon a xam jàngale islam mooy la koy waral juróom ñaari tomb ci lañ tënk mawduu ak tay bi li ci nekk mooy ab tàmbali ak laytaay boo xam daañ ko def laytaay boobu mi ngi tënk ci bari ay soxna ci lislaam ak yeneen diine julut lislaam ndax ñu dañu foog ni loolu islam rek la fekk déedéet islam daan ñu ko ci jiitu kon defe naa ku ko ci joxañ baaraamu tuuma loolu daal gënul sax li tontu jërë di doon ndax loolu ki koy joxañ ko xamut lay doon ñaareelu tomb bi mooy naka la islaam yoonalee bari ay soxna nu mu koy defee ak ñaata moo dagan nit ci takk ko ci ay soxna ñetteel bi mooy naka la ñuy dëkkalee aaya ji wax ci alquran ni góor mënut fexe ba maandu ci soxna yi ñu yore ndax aaya naa it wax loolu am jenn aaya joo xam dafay tëkkoo ko tiitam ki nga xamante ni moom moo yore ay soxna te maandu wut ñaari aaya yooyu nan lañ leen di dëkkalee te faral nga am na fasla bu ndaw boo xam ni ñu ngi ko tuddee maanal adlul matlub kon nag léegi maandu bi ñu soxla moom mooy kan ndax nit ñi tamit dañuy am jafe-jafe ci buñ sax maandu léeg-léeg ma faral ko wax mbokk yi léeg-léeg nga dégg ku ne dangaa war a yemale sa ñaari soxna yi loolu jumte bu mag la dangaa war a yemale sa ñetti soxna yi loolu jumte bu mag la yemale ku ko def tooñ suñu borom sax defu ko yemale ak tooñ la maandu te moom la islam jàngale ndax yemale mooy kenn ku ci nekk lan ko jox rek moom ngay jox moromam te am na ku muy toll koo xam ne duñ tolloo parce que seen situation bokkul la ñuy tolloo loolu tamit lu ma ta bàyyi xel la juróomeel bi mooy naka la islam organisé nag dund boobee nga xam ni ay jigéen ñoo nekk ci ron keppaaru génn góor juróomeel bi mooy aslëf ci yenn ci lor yoo xam ne mën naa am ci bari ay soxna juróom-benneel bi mooy fiir ak yi yi ci nit ñi boole te bokku ci ak lan mooy taxawaayu lislaam ak lu mu wax lu mu leeral ci fiir juróom-benneel bi mooy wala juróom-ñaareel bi te mooy bi mujj mooy qalbul mawduu mooy xol mawduu bi mooy tawfiq yi nga xam ne nag ay kéntaani yàlla la yoo xam ni borom bi daf ko def ci góor ëppal benn soxna ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu dégg ak topp te it yombalal ñu ba lii nga xamante ni moom la ñu waajaloon ñu mën koo faram-fàcce mën koy leeral te it dimbal ak kàttan ci moom rek la mën a bàyyi ko subhanahu al masalatul ula jomb bu njëkk bi mooy muqaddima ci bari ay soxna ci lislaam ak bi ci lislaam xam ngeen ni waxtaanee bari ay soxna bokk na ci tomb yi mat a waxtaane ndax yu am solo la tey li ko waral mooy bokk na ci yi ko waral bokk da di sabab su tax ñu bari di joxal islam di ko teg baaraamu tuuma di wane ne islam kat dafa tooñ ku jigéen ci daf ko deeral waa dañ koo jàppee koo xam ne tëbut koo am solo lool ci dund ci xataa la ci na jullit ñi wane ne ñoom kat une unité di gën a rëy ci kaw suuf mooy dajale ay jigéen di bànneeku ci ñoom rek loolu nag ki koy wax dama wax ni ku xamut lay doon ndax yaakaar naa ni yitt di gën a rëy ci ku gëm yàlla du bari ay soxna bi def waaye yitt di gën a rëy ci ci gëm yàlla bokk na te mooy defar société bu yàqu bi jihaad fi sabilillah yar soxna yi ak doom yi jàngal leen jubbanti leen génne nit ñi ci jaamu bi ñuy jaamu ay jaamu yóbbu leen ci jaamu yàlla yi kese yaakaar naa lii mooy yitt di gën a rëy yu jullit ñi am kon bu ca takk ay soxna bokkee lenn la te rek waaye du seen yitte ci gën a rëy te it ñoo ne di waxtaan bi yooyee sax su toog lii muy bëgg a wax te ñoom la jëm mooy ñoom dafay wane lii dafay wane seen ak doyat bi ci wane ni ñoom dañoo xamut ndax ku xam dina xam ne islam moom du moom moo njëkk a yoonal ak taadud muy bari ay soxna diine yi wàcc ci asamaan bu islam rek moo ci njëkk a tàmbali may góor mu takk lu ëpp benn soxna dëgg tey boo demee ci tawraat nga xam ni yahud yi dañ koy màggal lool ba tey te chrétiens yi sax di leen ci fekk si ci ay textes yu leer yoo xam ni ak nu ma ko sama ñaar yëpp boo ci dellu nga xam ni wax jii may wax ñoo ca bokk ñam borom xam-xam ne dañuy wax ni boo delloo ci sifru takwin dañ koy fekk ñett yi jii nga xam ni ñoom nan koy waxee laa koy waxee waaye lu ñun noonu lañ koy waxee mooy soxna taara nga xam ni mooy taara te ci ñun dafa jëloon jaamam bu jigéen muy haajara jébbal ko borom këram jox ko ko pour mu tax ko deuxième femme mu nekk ñaareelu soxna te loola ma dafa seeni téere kon loolu dama jàpp ni tegtal bu méngoog buy wane ni beneen ay soxna amoon na waaye bii sax faf góor gi jóge woon ci ko wuti waaye soxna si moo yëkkati woon ak jaamam jox ko ku góor gi te loolu yeneen ci yàlla yi nga xam ni ñoo topp ci Ibrahim dañ ko doon rey ci moom ba nga yëg ci yent yàlla Souleymane alayhi salaam Souleymane faf moom dafa jéggi sax fañ ko doon toogee moom ndax ñun fi li ko doon toogee mooy bari na ko kese waaye Souleymane borom xam-xam yi te loolu sa ñoom seen téere yi dafa dëpp mu arixuuna salaf mu arixu salaf li ñuy wax ni Souleymane amoon na junni soxna juróom ñaar téeméeri soxna yoo xam ne ay gor lañ ak ñett téeméeri yoo xam ne ay jaam lañ loolu moom lu bir la loo xam ni sukkandikuñ sa ñoom lan wax waaye lan wax dafa dikk méngóog nun suñu borom xam-xam li ñu xamal kon yéen ci yàlla Souleymane alayhi salaam ak ni ngeen ko xamee nguur bu yaatu bi suñu borom mayoon li mu amoon ci ay soxna moom dama yaakaar ni baaraam yi ñuy joxoon yonente bi alayhi salaam su fekkoon baaraam yi yàlla ñu joxoon ko xala dañ ko doon njëkkoon joxoon Souleymane ba noppi ndax moo ëppale yonente bi alayhi salaatu wasalaam te kon gisuñ benn tegtal ginnaaw bu ñu defee ay gëstu nag ginnaaw bu ñu defee ay gëstu yoo xam ne yu xóot la kenn salaay fan la la yem gisuñ benn tegtal bu wér di wane ni génn diine ci diine yi jiitoon islam dafay tere góor bari ay soxna loolu amut déedéet benn diine nag amut ci diine yi dëkk texte boo xam ni saxiixun sarixun yanha an taadud loolu amut ci suñu gëstu toll ginnaaw ñu ko xóotalee lool gisuñ benn tegtal bu koy wane lu dul ak tegtal bu koy muute du ko ndax boo delloo ci atalmuud nga xam ne benn sarxa la boo xam ni kenn ci kàngam yahud yi moo ko sarxa tawraat te ngay fekk lu koy nuru te du ko mooy daganul góor te lan wax moom du buñ bari ay soxna day daganul góor mu ëppal ñeenti soxna wax ji loolu la wax ñu ne ko li sa tegtal muy toppandoo yent yàlla yaqub ndax paasewul woon ñeenti soxna te it bu fekkee góor gi dafa jiw yi sama soxna du ma ko wutal wujj su boobaa it du dagan mu wutal ko ko lu koy soxna si moo ko jox ndigal te bala ko koo wutal faw ñu dund lu mat fukki at te lii lépp sax nag day du loo du du la ci xawaat waaye ab xarax la rek boo xam waxi borom xam-xam la te seen borom xam-xam ñoom te kooka sax dàqut bari ay soxna waaye lan wax mooy ëppal ñeent nga bañ koo def te bu dee loola sax loolu la sax dafay dëppoog islam beneen bi ci fekk moom mooy lu jëm ci masihi la muy diine chrétien yi soo delloo amul benn tegtalit nag ginnaaw bu ñu xóotalee gëstu foofa ba noppi gisuñu benn tegtal boo xam ne bu wér la buy tere ne góor bareel ay soxna dafa xaram donte ñoom dañ koy wax waaye boo delloo ci seen bible yi nga xam ne ñoom ca la ñuy ëpp lu ñuy sukkandiku nga xam ne borom xam-xam ne leen bu amee yu ñaan tane moo ca tane bible bu ñu tuddee injilu Mata injilu Yohana ak Markus ak Luqa ñeent yi benn boo ca dem amu ca benn tegtal buñ mën a sukkandiku bu wér buy wane ne dafa xaraam góor ëppal benn soxna te it buñ fàtte ni ñoom buñ fàtte ni Aïssa daf doon wax ni man ñëw ma pour wàññi la fi newoon ñëw ma pour soppi yi fi nekkoon waaye dama ñëw pour mokk yi moo tax yéen jànkatu quran bu ngeen seetloo téere bi subhanahu wa taala li ëpp dafay lënkale tawraat ak injil dafay lënkale tawraat ak alquran te injil daf ci diggante bi waaye dañuy fekk injil di lënkale alquran ak tawraat li ko waral mooy ñoom ñaar dañoo mëngoo ci ay mbir yu bay tey injil dafa ñëw pour mucc li ñëwul pour yeesalaat beneen bi ci topp moom mooy ñi nga xam ne ñooy sànni ay baax ci beneen ay soxna di ko jëmale ci islam ak ngeen islam ñooñu dañ leen wax ne loolu day wane ne ak daya bi buy wane ñàkk xóotal ci ay gëstu la ndax bu ñu xóotalal ci gëstu danañ xam ni aw doxalin la moom bàyyi ay soxna wu jiitu sax nag islam fas boo xam ne wax na mbiru diine mbiru société yi rek ñu doon dundee soo yi ñu tuddee al abrani yoon ak arab yi te seen keddo ba avant islam ak soobu safa safaali ba nga xam ni tur yooyu bu siiwatu tey mën naa la ko tënkal ni la réew yi muy duggal yéen te ñooñu la ñu soqee ko Russie muy Russia Lituania Yougoslavie ak Tchécoslavia ak Nimta ak Suisse Belgique Hollande Suède Angleterre Norvège yii la nit ñi ñëpp amul ci benn doo jàng taarixam histoire am fan yàgg la lu dul dañuy fekk ñi bari ay soxna lu ñu xamoon la ñoom doon ko dund te ji réew yi ma lim moom defe naa moom ay réew yi ñu xamee lislaam di ko jàng bu dee ci ñun li ñuy faral di waxee mooy réewu tugal yi ñaareel bi moom mooy lu jiite lislaam it nag arab yi ci seen jëmmi bopp ñoom dafa bokkoon ci ngóora dafa bokkoon ci ngóora bari doom sëppub sikkim bari soxna ñett yi daa bokkoon ci yi nekkoon ngóora ci arab yi lu jiite lislaam ak nag lislaam moom bu ñëwee fekk ci ñu yëpp moom kon bu ñëwee indi wut lu bees moo tax bu islaam ñëwee fekk nag ñooñu dëgg la jiitu nañ ko ci yoonam ak sa àdduna bi ay soxna waaye nag organisé wuñu bari kay ñuy wax wax bi dafay ëpp seen kaw ndax ñooñu ñi yoonal góor dañu ay soxna te tënku ñu ko organisé wuñ ko ndax tënkuñ ko mooy lu neex góor gi ci ay soxna bu leen mënee yor ak bu leen mënta yor na takk organisé wuñ ko mooy loolu neex nga koy defee islam ñi ñëw tënk ko organisé woo ko damaa jàpp ne foofu lañ amee njukkal moom kon islam bi bu ñëwee dafay yoonal mbir mi ba noppi organisé ko tënk ko ci fii ma toog rek ci li may teewlu defe naa après deuxième guerre mondiale yaakaar naa réew yi ma bëgg lim France ak Allemagne même Allemagne gis nga boo demee Allemagne Allemagne après deuxième guerre mondiale dañu seetlu ne société bi li dee ci ay góor dañoo bari trop trop trop ba jéggi dayoo ah léegi comme góor yu bari dee leen li ñuy def mooy nañ permettre nit ku ñu neex la takkaloo ñetti soxna lii may wax boo jàngee taarixu Allemagne dellu ci ñi nga xam ne même bu ñu xam ne l'islam sax moom dinañ wax dëgg rek dinañ la wax lii yoonal góor mu am lu mat ñetti soxna sabab si mooy góor ñi dee te góor mooy doole société comme buñ ci jubluwut léegi xay am te am na benn historien bu mag muy Paul Schmidt ci waa Allemagne la soo delloo ci atum mille neuf cent trente six xam na benn téere bu mu taalifoon tuddee comme islam quwwatul ghadi islam daal dëgg dëgg bu ñu sàggalee moo nar a yore doole ëllëg moom la ni islam bu ñu sàggalee doole ëllëg moo ko yor nar a yore ci téere boobu boo ci delloo dafay indi facteur yi tax sabab yi tax jullit ñi yi tax jullit ñi ñu nar a dominer adduna bi bokk na ci mooy nangu guñ nangoo takk ay soxna yu bay te di am ay doom te moom nee na d'accord nañ ci loolu ci sabab yi mën a tax nit gaaw a dominer adduna bi la bokk ci sabab yi mën a tax nit yilif ay moroom ca la bokk loolu bokk ci l'islam sax nangu na loolu moom bokk na ci yiy wane ni l'islam ci boppam moom rek mooy solution bi mën a génne jullit ñi gëm yàlla ci ak ñeneen ñu dul ñoom ci jafe-jafe yii mooy xam ngeen ni actuellement nii fiñ toog li ma la wax taarix la li may wax nag mooy li ñu dund actuellement am na réew yoo xam ni jigéen yi nangoo am doom ba demee France wala yu ni mel dañ leen di jox ay neexal. dana loolu nit xam nañ ko moom. li ko waral mooy góor ñi dañ leen a tënk ba duñ ëppal benn soxla ñaareel mooy seen i jigéen nangu ñoo am doom te ñoom ñoo gën a xam ne dañoo soxla ay peuple peuple bu bu yaatu léegi pour nga nangu jàngale lislaam loolu soxla xol la léegi xaw ñu jëm koo jaaree feneen loolu mooy wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa mooy bañuk lam ñu nangu xol léegi faw ñu fexe léegi jigéen bi bu nangoo am doom ñi di ko jox ay neexal pour muy gaaw a sawar di am doom loolu boo jàlloon dara lislaam yoonal dafa naan neexal kenn du la ci fekk te léppay sotti moo tax xulul yi islam rek moo ko mën a indi kon am na benn borom xam-xam maa ngi koy déglu muy nekk ci benn kaset xam naa li ma teewlu mooy ban dëkk la ci dëkk yi waaye pour wala ni la maanaam nit ñi dañuy dem ba jaaxle au lieu que ñu dem ci l'islam déedéet dañuy jéem a seet ku ñu teggee ji far musiba dal leen xam nga benn réew boo xam ni bi ñu jógee ci guerre bu metti buñ doon guerre dañoo gis ni daanaka góor dëkk moom génn seeni cadre ñu tëju ni nan la ñuy def pour régler situation boobu bi ñu gëstoo ba xel yi génn xel yooyu mooy xel iblis yi rek ñu gis ni léegi nañ permettre léegi daal amul maam comme mariage sans frontière ñu koy wax amul tëj bu léegi amul jabar amul benn amul ñaar ay soo jotee sa yaay àndal ak moom soo jotee sa mag àndal ak moom soo jotee àndal ak moom ñu toog ndax kan ngay àndal kii ànd ak yaayam kii ànd ak bàjjanam kii ànd ak tànkam pour le peuple bi gën a bari suñu borom yebal ci ñoom benn xeeti yemb dëkk boo xam ne comme yi ay yemb la bu dikkee bu la màttee benn rek affaire day commencé di wàll nekk boobu di di yàq yaram di yàq yaram ba dafay dee xetal boobu borom xam ngi nekk di ci tooñ ak musiba yi ci mën a juddoo umu fi ala kulli xaal mu leeral ni ba kenn dëkk bu réussir na ci am jamaat yu demee noonu kenn mucc ca mu génn bu mu génnee mu daw làq di la màkk li muy génn nag dajale na ci or lu bare bare bare bare daal di koy denc ci benn place dem màkk am fa fukki at bu fukki at yi jàllee mu ngi la delluwaat ci dëkk ma ndax imaanu yàlla yam gisoon moo benn waaye fay ko tegtal ko ni ko boo demee ci barab boobu nga génneel ma loola waaye da dem daal di sulli génn affaire ba ñëw nekk na benn yomb moom mu nga dugg ci biir kees di ko xaar pour mu jël wàllam ginnaaw fukki at yi jàll bi mu yëgsee moom dafa ubbi kees bi rek affaire bi ni ko fas ci kanam moom fa la jaaree dem àllaxira ñu jàng aay ji wala taxsabanna allaha gafilan amma yaamalu zalimun kon léegi société dañ jaaxle au lieu que ñu dellu ci l'islam déedéet waaye ban islam dara tax ñu jéem wut yeneen solution waaye ñu sotti kon muqaddima jooju defe naa leer na ci wane ni kon islam jiituwu ci yoonal bari ay soxna ñaari moom mooy dana wane tamit ni l'islam ci boppam dafa aaraale sax société yi parce que ñee dañ koo yoonaloon te organiser wuñ ko tënkuñu ko islam ñëw organiser ko tënk ko kon yaakaar naa ni jigéen yi nga xam ne ñoom dañuy joxañ baaraami tuma islam di ko ànd ak ñeneen ñi nga xamante ni ay noonu lañ ca biti ñooñu damay wax ne bu seeni gis ku xóotoon sax buñ waxee noonu waaye nag xam nga léeg-léeg li wala fi naan mag mu jàkkaarloo ko dem seen jëm seen ko tay moom wax dëgg yàlla neexuta mën dara wallahu alam ñaareelu tomb bi mooy naka la ñuy bàyyee ay soxna ak ñaata moo dagan góor ak ko borom bi subhanahu wa taala yoonal la góor mu ëppal benn soxna waaye nag charte yii mooy daje góor doog a ëppal benn soxna saa bi mooy ut ci am benn dem moom yàgg mu bëgg a dolli beneen su fekkee charte yi daje na day góor mën na ëppal benn soxna te lu am solo la xam naa ñu soote ba mu ñëw pour waxal góor ñi jug leen dem takki ay soxna déedéet moom taxumaa bi tey pour wax góor ñi jug leen dem bu ko jigéen takk ay soxna yu bari naa jigéen ñi loolu la ñuy foog loolu moom taxunoo jóg tey li ñu tax a jóg mooy ndaxas mi am ñu leeralaat lañ njàngalee islam ñi ci nekkoon xam ni ñii la ñu ci duggoo xam ni ñii la loolu moom tax a jóg bi ci njëkk mooy nit ki na fexe ba mën a maandu ci diggante ay soxna maandu nag du ma ci guddal ci gunt boobu ndax am na nuqta boo xam ne mi ngi ñëw te loolu sa lay wax buñ ko yeggee kon maandu gi dana leer nit ki fexe ba mën a maandu ci soxla yi mu yore ñaareel bi mooy al qudratu ala al infaq góor gi mu mën a fexe ba su yoree soxla yi da leen mën a dundal suxu di waa joo xamante ni dafa nekk fii rek moom daanaka mënta yore sax fenn ah mu gis gaa yi dolli rek mais damay dolli déedéet loolu moom charte bi mënoo koo matal na nga fexe ba soxna si li gën a jàpp jox ko mu lekk jox ko mu naan ko fu mu dëkk te di ko dundal sàkk boobu soo ko mënta matal kat na nga yëg ni yow takk beneen soxna moom warul la yow ndax xam bu fekkoon ci benn lañ toll sax dañ leen takk benn waru la ndax ki mënul moom bu doon ci benn lañ toll dana ko mënul toll la bu fekkee kii nekk ci benn la ñuy wax waru la moom kii nekk ci ñaar taxut di wax ñaari mooy allah yazid al jamu ak fara an arba'i an allah yazid al jamu an arba'i niswatin xawaaj bu góor gi takk lu ëpp ñeenti soxna ndax kat loolu mooy njàngale islam yu wér beneen bi ci des mooy ci nit nit boole ñaar ñu araama boole ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi déedéet xanaa mbete bu kenn ko faatoon laa la xase nit ak bàjjenam déedéet kon yi islam tere ku leen boole leen boo mataloon yëpp te bii yëpp si wut parce que ay soxna du mën a bàyyi suñu borom day wax nag kuntu kama taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa foofu nag da nga dégg gars yi di ko firee firim bu leen neex ndax xam nga fii moom Sénégal moom dafa neex ndax mën na la liir rek dama làkk jumla bi wér faax la kaa la nafaolu bi daal boo ko fetee mën a làkk rek moom mën ngaa commencé wax nag léegi yow su ko defee léegi da ngay dégg ku ne masna da ngay takk ñaar wa sulaasa nga dolli ci ñett muy juróom wa rubaa nga dolli ci ñeent muy juróom-ñeent bu ko defee mën ngaa takk juróom-ñeent sax am na ñu wax sax ñu gën a xaabaabal loolu sax waaye alxaafid ibnu kathir boo demee ci tafsiram dafa tontu gaa yooyu alxaafid ibnu kathir mu ni takk lu ñeenti sax takk ñeenti sax la rek yam sax loolu la aimatu ahli sunnati wal jamaa ñëpp dëppoo borom xam-xam yi seen la xam-xam ñëpp dëppoo nañ ci lu dul ak kuréel ci chia ak ñiy dox ci seen yoon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne laa xaatal dañ ñu moom takkal bu la neex rek maa baax mooy lu la soob amul tënk lu la neex takkal am nañu ne waaw bi day boole masna ñaar wa nga dolli ci sulaata ñett wa nga dolli ci rubaa ñeent ibn kasir bu ne lii nag wax dëgg yàlla ku koy wax lii mooy wan ne xamoo dara dara dara ci làkkum arab mu ne xamoo dara ci làkkum arab xamoo dara ci sunna xamoo dara ci alquran kon kafa allahu muminina qisaam kon yaakaar naa ni ñay wax loola moom daanaka gën sax ñi sama war wax loo wax mbokk yi léeg-léeg pour dëgg yàlla loolu yeneen ñu gën a yitte ñu war a leeral yoo xam toog di ko wax waxaat yu bari sax lay jëm suñu wax loolu moom ñun ñëpp xam nañ ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek la yàlla may mu ëppal ñeenti soxna mas na maa daje benn waay boo xam ni ci diine chrétien la bokk ñu daje ci benn kër mbokkum jigéen mu tuub li may wax yàgg na loolu defe naa léegi jege juróom-ñetti at boobu sax xanaa li may wax ñu leeragul woon sax ci man mu ni bokk na ci li ñuy critiquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa bari woon ay soxna bokk na ci li ma ko tontoon mooy Souleymane moomu gii ma defa jaar te bokk na ci li ma ko tontoon mooy yow boo nekkoon ci dëkk nee la su xeex amee wala ku jëkkëram faatu bàyyi ko njaboot lu mu màggat màggat takkal nga jël li nga nag mu ni fekk ma ne ko jël danga may tontu mu ni ma déedéet lu tax doo ko nag mooy ma bëgg ma ma ne ko ngay taamu takk soxna est ce que dina préféré sooy bari ay soxna nga takk kenn rek waaye ñu tees ñëpp nekk ay màggat mu ni déedéet ma ne ko yonente bi da loolu doo mën a bari la woon sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko yow li mu nangu nangu ko ñaareel bi moom mooy yéen si saa salaam bu fekkoon ci nii comme ni ko ñenn ñi waxee parce que dañu leen loolu jërëm dara wàcceel niveau bi da taw rek ma wax ak nit ki fa mu toll jërëm dara ndax kooku daa xam ma ne ko yéen si ba alayhi salaatu wasalaam wax dëgg yàlla bu nekkoon bànneex ko ay soxna moo ko tax a jóg ragal naa meer yi ànd ak ay doom du leen takki moom te defe naa boo génnee Aïcha génnee Zeynab binti Jahsh ci xaw koo dab dabaal mbaa Hafsa ci xaw koo dab dabaagal ay màgget ci meer ak i borom doom gis nga mu ne takk umu salaam damaa féer mu ne ko ma ñaanal la yàlla mu daw màggat laa mu ne ko maa la mag damaa yore doom mu ne ko may seen bàyyi kon yaakaar naa ne kooku moom am na lu ko taxoon a jóg lu dul la nit ñi foofu ala kulli xaal ñeent faral di ji góor waayam kon nit ki su fekkee bëgg na bu amee benn mën naa dolli beneen bu fekkee matal na sart yooyu ma wax mooy na nga fexe ba bul boole ñu xaram ku leen boole juróom genn keppaar na nga fexe ba bul ëttal ñeent fii nag am na ñoo xamante ni moom dañ leen di askanare diine sax dañuy ëppal ñeent defe naa loolu xam nañ waaye gis nga suñu borom léeg-léeg daf ñu noppalee ay mbir ndax am na yoo xam ne bu dee génn balaa génn ci suñu làmmiñ suñu borom da koy jaarale te làmmiñ ñu comme war a jaar génn am na kilifa gu mag ci ñoom koo xam ne su ma tuddoon ci sama génn xay benn waay dana ko waaw yéen seen soxla yu bari yi yéen takk moom moom moom su leen ko teg ne ko xanaa ci kii rek daal di bos bakkan bi si bakkan bi xanaa kii rek fab suñu bakkan rek te kilifa la boo xam su ma leen noonu juróom leen ni xay faa rek seen soxla yu bari yi fu ngeen ko teg ne xanaa topp kii rek kon kooku moom noppal la ñu kooku ñun nag tànn kon jël ko ñu yàgg foofu ndax comme ñoom ñoo mën a xam ni ci seen bakkan lan ko teg nag moom ku jël sa bakkan def ko imam boo sàggantul mu jiitale ci jàkk ji bu ko jullee comme ni ko wolof yi waxee. kon ak naqatu saalisa ñetteelu tomb bi mooy naka la ñu dëppalee nag aaya jii di wax ni góor ñi dañoo war a maandu ak aaya jii wax ni kenn mën sa fexe ba maandu. ñaari aaya yooyu benn bi suñu borom dañu wala tastatiiu an taadilu bayna nisaai walaw xarastum mën leen a muusa te mucce même bu ngeen ko bëggee ba fexe maam bi ci seeni soxna mënu leen ko loolu ndaayee lan la jëfandikoo du ngeen ko man ba mukk jëlal aaya ji sunu maam la ngeen xittum allah taadilu bu ngeen yaakaaree ne bu ngeen ëppalee ñaari soxna ñett bu ngeen naadu fa waaxida ko yem leen ci benn yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam mu ne képp ku yàlla wërsëgal lu ëpp benn soxna mu jéem di ci kenn ki jëmale ko ca ca def bu yomal xiyaam bi ko dafay fànn ak wetam sëgg root day waaj a waaj a root am na benn benn bi riwaay bu ne maa in benn bi ne soq ko day jéng benn bi day rot na sax sa suuf yi liggéey ko ànd moom jëm xaw yi loolu musiba ji day góob joo xam ni képp ku yore ay soxna wala nga namm koo yore war ngaa bàyyiwaat xel tëkk bu mag boobu nga xam ni ci bu yore ay soxna te mënta maandu ci seen biir ndax kat wax dëgg yàlla bëgg a yore ay soxna war ko tax su fekkee yëg nga ni mënoo garanti maandu bi su boobaa war ngaa fexe ba yem sa benn ba kere nga koy mën ah xalis la bi nga xam ne koy solo ci musnad te xalis la bu wér ak abu daawud ak ibn jini génn nañu ala kulli xaal الحافظ ابن كثير فدلت تفسيرا به ولن تستطيعوا أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ابن كثير بتفسير آية دني سنو برام دني mënu leen a fexe ba maandu ci soxla yi ci mboolem anam yëpp yamale leen ci lépp loo defal ci defal ko kee loo wax kii wax ko kee loo jox kii jox ko kee réel kii réel kee mënu leen ci suñu borom mu ne mënu leen loolu nee na wa in xasalu xasalu assuuri laylatan wa layla fala budda min altafawuti fi almahabati walshahwati waljima même bu nekkee ñu jéem ngaa maandu ay bi bu dee ñaari fan ñaari fan ku nekk wax ko ñaari fanam bu dee benn fan benn fan ku nekk xasma mattafaqu ci lañ dëppoo nee na su fekkee dépense nga di ca jéem la nga ca man nee na faw rek am ëppalante bu am ndax mbirum bu jël nekkul ci sa xol te faw nga am koo gën a bëgg loolu mu mënta ñàkk léeg-léeg góor la mën naa wax sama ñaari soxla yëpp ñu bokk yem ci man d'accord ñoo yem ci yow waaye nag wax dëgg yàlla nag moom mënta ñàkk nga am koo gën a bëgg loolu mënta ñàkk loolu loolu mbirum xol la loolu mbirum xol la nit ki mën naa am ko mu gën a bëgg day day nag léeg-léeg da ngay nit am maîtrise ba du feeñ di leen ñàkk maîtrise moom feeñ te ñàkk maîtrise moom feeñ nag wóorut ndax su ma waa mën naa taal ci kër yëpp bul dégg nag yonent bi ak Aïcha rek la digal yonent bi digal si buntu boobu de bàyyil xel loolu ci nit nag kon sëñ nee na loolu mooy wax Abdullah ibn Abbas Ubaydat as-Salmani Mujahid Xasan al-Basri Dahaq ibn Muzahim ak ñu bàyyi ci aimatu salaf loolu mooy seen wax Ibn Abi Xaatim nee na aaya ji moom dafa wàcc sax ci Aïcha ndax moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ñeneen waaye nag teewul yonent bi daraan maandu ba ci yamale lañ war a yamale kenn ku ci nekk mu jox la la nga moom su dee waxee ci Cheikh Abdourahman ibn Nasr Saadi ci mu ngi tafsir aaya ji dañu suñu borom de day xam nga ni góor ñi mënu ñoo maandu maandu gu mat sëkk ci seeni soxna ba yemale na ñuy bëggee yemale na ñuy àndeeg seeni soxna ndaxte kat la koy waral yow moomoo ko ba di ko man parce que mbirum xol la ndax mbirum bëgg kat mbirum xol la te xam nga nit moom bu romb bi ñaari gannaaw sax ñuy joxante léegi tey moom bu ko waa toog xolam gannaaw fu mu fu mu xaw a xool loolu loolu mbirum xol la nit ki mënu ko moom nee na su ko defee la koy waral kon moomoo ko moo tax suñu borom mu ne la nga xam mu ne fa dalika afa allahu amma la yustataau mu ne loolu tax yàlla mayal la kenn mënut wa naha amma huwa mumkin mu tere li mën a nekk moo tax mu ne fala tamilu kulla al bay bul jéng jéng bu ëpp jéng bu ëpp mooy dem ba nit ki xàq yi nga war a jox nga di ko ko xañ dem ba di feeñal sa sa sa sa sa gën a bëgg ba muy jur adaawa ci keneen ka dem ba di jox kii lu ëpp ci ay wala yu demee loolu ah loolu moom wax dëgg yàlla nag kooku moom dañ koy yebbee ni ci li seen bàkkaar mu ne fan nafaqatu wal kiswatu wal qasmu dépense beeg koddaay geeg séddale ay geeg yooyu yëpp mu ne alaykum an taadilu baynahunna fiiha da ngeen caa waree maal bi xilaafi al xubbi wal waqi wa naxwi daalik ànd ak soxna soyeeg moom ak bëgg ko ak yu demee noonu kat nag mbir la yoo xamante ni ëppalante mën na caa am te su boobaa dee su ko bindal nit ci bàkkaar ndax mbirum xol la mbirum bëgg la ibnu qudama borom téere bu màgg boobu almughni boo ko delloo mu ne la naalamu xilaafan bayna ahli ililmi fi annahu la yajibu taswiya bayna nisai fi ljimaa ibnu qudama mu ne xawma ak wuute ci borom xam-xam yi ci ni warul góor muy naan day maandu ci ay soxnaam ci ànd ak ñoom ci wàllu sëy comme ni ma ayee ci ma ànd ak moom sëy boo ayee kese faw nag force bi nga ànd ak moom sëy mbaa nga am bàkkaar déedéet mu ne te njëgul wax jëm si fekk li mu amee solo mooy wa dalika tariqatu shahwa aw tariqatu shahwaniya ndax kat loolu mbiram bànneex la ak jeng te nit ki kat loolu moomu ko te du chaque jour tamit mu am sawarte du chaque jour mu man ila axiri ndax xol bi kat léeg-léeg wax dëgg yàlla dina am koo xam ne dana ko gën a jeng waaye loo man ci nëbb ko denc ko ba kenn du ko xam loola li gën a baax mu ne lii nag mooy waxu borom xam-xam yi salaf kon ci loolu mbokk yaakaar naa ni bu ma defaatoon benn synthèse bu gàtt ñu ne tënk kon maa huwa al-adlu al-matlub lan mooy maandu gi ñu sax wa huwa taswiya bayna az-zawjat fi al-umur al-maddiyat كالطعام والشراب والكسوة والمسكن والمبيت من غير تفرقة بين زوجة الغني وفقيرة fexe ba daal dépense bi dëkkuwaay lekk gi naan ak ay nga fexe ba yooyu benn bu ci nekk moom na nga matale ku nekk nga jox ko lam yeyoo jël fii wéer ko fii ci këten ci néeg bu baax jël këtene si yóbbu ko ca fa ndox ma nekk luyal ko fa ci néeg bu demewut noona ah déedéet déedéet boo ayee fii da ngay joxe dépense bu mat fekk boo ayee fa jox ko suuf ni ko débrouillé comme ni ko gars yi defee nga xam ne dañ ciy bëgg lu yomb lool déedéet waaye nag buñ fàtte dépense yi duñ tolloo ndax ki nga xam amal moom ay at amal moom ñetti doom boo nee bu ma xëyee dama ko bàyyil deux mille kële amagul doom nga ne deux mille laa koy joxe yaa ngi bëgg a tooñ la yaa ngi bëgg a tooñ su boobaa kon loolu tax na ne tollale mun tollale mënta am ndax li tax mënta am mooy nit ñi dañoo xamaloon du leen jàllale ma tam suñu benn sëriñ ba leen dëkk nit ki nag xëstam mooy noonu mu ne waa ji dafa soxla si dañu ko xaw rek da ngay yemale kenn ki dafa gàtt kenn ki njool mu daal dem dem ci ñëw lu ko daal di ci njool moom yëfee jot na ko ci njool moom ñu yemal ko ñu si mbëx mu toll ni moom muy kaas ñu ne ko déedéet yaa ne woon yemale nan la yemale dafa ka daal loolu la rek tey laa daal di diima yi nga xamante ni kii numéro dix lay sol kenn sol neuf kii sol dix mu ngi onze baax na ci man nga dem jëli ñaari onze kii sol numéro neuf da nga ko toll